Sénégal coow lu méttee métti am ci village bi ñuy wax Mbéy askan wi di jàmmarloo ak takk der yi sànnante xeer grenade lacrymogène jur ay blessé yu baree bari ay ndaw itam sandarma yi teg leen loxo. sama mag démb daa yendoo jooy daa fanaanee jooy moo ko njabootam bàyyi na leen ak yàlla ak yonentam ak sëñ Babacar fa ñu bëgg fa li ñu yut yàlla buñ ko yet yàlla nit ñi suule yàlla neen yàlla suule am na koo xamante ni fii noonu ko dóor akar major si put kenn fii waaw am na am na loo xamante xel xel mënu ko nangu quoi. di défense suñu honneur moo waral ñu dóor ma la xormaseen fii mënoon naa fa jaare ñàkk sam kenn xamul bilaa walaay parce que keroog li ma sentir fee man a yàlla doo xam. dañ ñoo wan carrément ni ñun ay baadoola lañ. am na borom doole yi fi am tool dañ leen di wër jéggi leen ndax borom doole ci digg bi lañ am tool. ñoo ñoom ba ba géej gi ñeex suñu doom yi dinañ lu bàyyi ak ñoom ñu ne ak moom si dëkk bi ñoom nañ parce que ëpp nañ ñu doole ñu ngi toog mais bataay bi yàlla xam nañ duñ ko perdre daaneel taxul nga dëkk daaneel taxul nga dëkk lu si bañul bañul ñu ko si buñ daaneelee ba pare luñ fa tabax neen dem bu ñu del toog gannaaw tuuti ñu wax leen lan moo xew ci dëkk bii wante laata loolu ñu dikkaat ci cosaanu mbéy di ab dëkk bu nekk ci commune Bambilor bi la gox nag ñu ngi ko sanc ci boori atub 1800. vers ay 1800 yooyu la fi suñu maam yi nekkoon ñu nekk guy géwén mais peste bi moo ñëw disparaître leen suñu maam yi mu mujjoon Paate Njaay es euh, Sathiane bi nga dégg mu nekk ci Isra bii diggante Sangalkam ak ak Woyambaam foofu lañu départ foofu la ñu sancaat dëkk fa boo demee suñu bàmmeelu maam mi ngi foofu cest mag ñi dañoo sàggan waaye mag ñi fi jëkkoon noon nee booy dem Sangalkam da ngay romb bàmmeel bi loolu bi ma amee nag maam ma kan mi nga xam bii ab jarbaatam dafa sëy woon njaayam li waral euh, cosaan li moo ñëw njaboot gi nga xam ne bi moom la fi waa njaayam njaayam mu di ay sëtam ak i jarbaatam moo dikk 27 sanciyaat dëkk bi moo nekk koo xam ne kii ko amoon taxawaay la bi mu jógee ci loolu nja maam njaga bi nga xam ne ñëpp xam na zone bi yëpp xam nañu ko ci ni mu taxawoon ci zone bi moo ko remplacé woon ginnaaw maam Njaga Bey nga xam ne moo doon doomi maam Makan rakkam bu ñuy wax Modou Bey moo ko remplacé ginnaaw Modou Bey doomu maam Njaga Bey moo fay Bey yàlla na ko yàlla yërëm ak njaboot ñu ngi fi moom moo remplacé ginnaaw bi nga xam ne bii moom tamit mu na yàlla na yàlla yërëm ci la dëkk bi waxtaan maanaam fa ma teg ci seen kanam mu doon loo xam li nangu ma ko woon waaye nag bañ demee ba nga xam ne bii dañ ne sama papa ma waxee sama papa ma laaj ko mu ne ma bu fekkee dañ lay jàppale nungul loole ma nungu ko dem jàppale boobu nga xam ne bii moom la sama papa waxoon dëkk bi ñu ngi may jàppale cent pour cent moonte dey boobu la jamono am terrain maanaam kër fii ci mbéy doonoon na lu yomb lool waaw xam nga lii am léegi amuloon booba ndax mbéy boo seetee ni mu toll fi mu toll ñaari néeg moo fi jëkk ginnaaw bi ñu ko moo ñu maam Makan mi nga xam ne bii moo fi dikk ak ak i rakam ak famille bi nga xam ne bii mooy njóobeen Mor Ngom Diop ñaari néeg la woon mais nag dëkk day màgg ndax booba <laughs> ñaari néeg bu demee ba xam ne bii ñu ngi yokk ne mat na cent hectares fi mu nekk kon xam nga ne yokk na mais ci wàllu euh, ci wàllu dëkkuwaay bi ah nekkul loo xam ne dañuy limité da bokk ci famille bi boo dikkee wala nga jógee feneen ñu baaxee la daggal la kër booba lii am amuloon kon dëkkuwaay bi noonu la demee di yokk ba ñu agsi fii. ci atub 2023 bi diggante fukki fan ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre askan wi ñoo doon jàmbarloo ngir tere Serigne Souhaïbou sekk ñëw jël seen suuf. ginnaaw ñaari fan yi paase nga xam ne bii mooy ba tey gendarme ñu ci sone bi la ko dañoo jëkkoon a ñëw. ne suñu sooy bu sekk vingt de euh, neuf hectares la ñu déclaré gendarmerie ne def ko fee am suñu sooy bu sekk léegi neuf hectares yooyu moom lañu indi benn droit réel jox ko gendarmerie léegi bi ñu dikkee bëgg a menacer euh, terrain bi léegi ba ñu ma waxee dama ne leen boo demee ñi ngeen yebal ñi leen yebal nee leen ko nanu dal ba ñu waxtaan léegi man maa déplacé dem ba ci brigade bi fekk moom ku bees la ma xamal ko mais ñu ne ñu amu leen kayit te kayit yu ñuy wax man bi ma bi ma vérifié fi ma jaar fépp ci impôt domaine dañ ma wax ne lii ay faux la ma ne leen kayit gi nga xam ne moom la ñuy wax yéen ni ma man def ba lijjanti ba xam foo la wala leen yéen te ngeen toog seen taabal man maanaam lijjanti loolu te du ngeen déplacé kon loolu bi ñu faral ne ak xale yi man. ñu tuumaal ma maak asar bay ñu ne biir bi fi nekkoon ñun ñoo ko ñoo ko taal ñoo ko saccagé tey euh, bi ñu am bi ñu fronté man maa ngi toog sous préfet fekkewu ma asar bay mi fekkewu ko mais bi ñu yëgee affaire bi ma toog préfet de moom mujj ne ma léegi demal nga arrêté waa dëkk bi ma arrêté gendarmerie ma jël rapidement oto dikk fekk baare xale yi dem wax ak commandant bi ñoom tam ñu am digal ñu bàyyi PV e boobu nga xam ne moom lañu defoon ñu tuumaal ma ci PV e bi mu woon ci gendarmerie terminal la jóge woon ñun ñu ngi toog di diglu terminal ba xam dañu woo ak léegi mais woowuñu numéro PV baa ngi nii dañ la ko jox léegi tey nag bii bi ñu delsee bi ñuy ñëw tàgguñu kenn ndax DSCOS bi nga xam ne moom la moom la yebal mu ñëw jiite gendarme yi fi nekk yi ñu xam ñoo wàcc ci moo jëkk wàcc ci terre bi xamal ma ne fi mu nekk dafa bëgg ñëw limité ma ne ko looy limité mu ne teen ma ne ko sëñ sooy bu sekk amagu ñun mënaguñoo ko benn mètre boo xam ne bi wax ko maanaam fi ma jaar moo léegi damaa bëgg yow nga indi li nga am ci données yëpp ak fi nga jaar nga wax ma ko mu jël délégation quatre euh, trois personnes ak man ñu dem taxaw moom dossier yëpp ma teg ko ci taabalam ak décret bi nga xam ne bii préfet moo ko moo bi ñu dajeeg gendarmerie préfet moo ko def mu ma ah lii dégg bu ma demoon ba xam ne intervenir naa naa juum ndax décret euh, préfet boo xasee am loolu la mu ci war a si wóor rafetlu suñu kàddu ak fi nga xam ne dossier yëpp dama jox naa ko moom la mu ne kon léegi day bind ñi nga xam ne ay supérieur dem bi mu ñëw ci terrain bi dem naa ba ci moom wax ko loolu mu ne ma nag yow ñëw nga ma xam naa lool lama la waxoon def naa ko bind naa samay supérieur mais ne ñoo ma fi yebalaat léegi dama nga seeti autorités yi ci laa déplacé dem euh, sous préfecture ba ma demee fekk ma fa préfet fekk ma fa sous préfet te damaa jëkk woote mënu maa jot kenn ma woo préfet Tëngéej jotuma ko ma woo absent am jot ko mu ne ma après dina ma woowaat mais woowaatuma ndax man naka jekk man lu man de am ci jàmm laay dox te ci laay ñaan dëkk bi ñu dox ci kon lii bu ñu xewee ñoom bu ñu delsee nag ak seen doole maasee la tool yi dëkk yi comme ne la waxoon ñaari néeg la woon te fi mu ne boo ko def mata saa hectare loo xam ne lu nekk bokkul ci quinze hectares yi mu bokk ci extension village bi nga xam ne fii dëkk dëkk village bi fu mu war a yokkoo ba am ñoo xam ne jox nañ leen fa ñu commencé dëkk bay euh, defee ay ñii defee ay fondation yu dikk lépp boole ko maasale ko ak tool loolu ñu koy ñaawlu foo ñu ñaawlu yem. te ñu ngi koy dund depuis 2011 ba léegi nii ak un certain monsieur ku tudd Serigne bu sekk moo fi ñëw indi un bail de 22 hectares 2020 2022 la ko fi njëkk a ñëw présenté ko dëkk bi bi mu ñëwee fayul impense ñun kenn nit lañu fi gis ku mu fay impense benn enseignant boo xam dafa utoon terrain tabax ka kooku lañ gis mu fay ko impense mais à part gisuñu keneen koo xamante ni day yeewoo fii si village bi yor fi tool wala nga yor fi kër Serigne Souhaibou sekk fay la impense 2022 ñëw mu commencé travaux yi indi engins yi di liggéey dëkk bi jóg biñ jógee dem song ko xeex ak gendarme yi mu arrêté travaux yi ñu foog ni bàyyi na ñu toog ba mercredi passé mu ñëw en force mobiliser plus de 500 gendarmes wàcc leen si dëkk bi. indi ay engins bàyyiwu fi tool bàyyiwu fi kër bàyyiwu fi dala def jaay doole bu rëy te ñun nag dañoo yaakaar ni kenn gënu ñoo yey ci Sénégal mbaan mënuñoo am problème président de la république jóg dox wax ci régler ko Ndengaleer am problème président de la république def la même chose Ngor 500 mètres carrés xaw ma 5000 mètres carrés lañ amoon problème une petite portion de terre président jóg recevoir leen régler le problème. ñun ay citoyen leen kon ñooñu mën ñu toog fii am problème bu gën a sérieux 22 hectares foo xam nit ñu ngi fa dëkk am ñoo xam ne démb seeni kër lañ leen fekk engins yi toj douche yi toj waañ yi bàyyi fa bâtiment yi ko toj duusam toj waayam loolu kay mooy génnal seeni gaanwaan ñu koy def si digg ëtt bi lii ñaaw na. fii nga xamante ni moom la sooy bu sekk commencé di exploiter ni dañ ko jox ay kayit mais monsieur le maire anamu tool boobu sam papa moo ko doon béy. jox joxoon ko Mohamed Diop ancien footballeur capitaine équipe nationale de gore gore ancien capitaine équipe nationale Mohamed Diop mu ngi doon football Gorée ku ne xam na ko moomoom tool boobu donc tool boobu avant ñu koy exploité Ndiagne Diop moo nu jox ñoom maa man maa toog ak Assane Beye mii ak Matar ak euh, Dame Diop ak ak euh, ci Bambilor même ci ci ci mairie bi Ndiagne Diop génne na benn papier Mouhamed Diop ne ko kayit bi waroo ko yor urbanisme la war a nekk mu ni ko man maa fi toogal état bi maa fi toogal urbanisme donc Ndiagne Diop signé protocole boobu ba Mouhamed Diop exploité tool bi ñu partagé ko en en deux lii maire bi moom ko mu Ndiagne Diop lii waa dëkk waa euh, Mouhamed Diop moom ko kii kër yooyu ñuy toj kër gu ñu fa defar Ndiagne Diop moo bind këyit signé ko ci mairie bi mu valable parce que ñun Ndiagne Diop la ñu xam parce que moo ñu moom ngeen fi teg bu dul chef de village bi nga xam ne moo fi représenté mooy buntu gouvernement bi ci suñu dëkk Ndiagne Diop mooy suñu néeg ci suñu dëkk te njañ moo autorisé woon lii ba ñu def ci ay peine te ñun man 2010 la retraité fii laa jógee jàngi métier waxuma la man mais samay maam sax fi la ñu juddoo yaroo fi kii ne xaw ma 2011 la soo ko am ay këyit xaw ma kan moo ko defaral këyit yi problème bi moo di ne metti na mbéy lañu xamoon dunde mbéy la état Sénégal yëpp di xalaat pour dunde la vie est chère ñëpp ñu ngi leen nañu consommer li nga xamante ni mooy moom mooy moom moom la ñuy moom la ñuy béy ñun fu ñuy béyee bu fekkee ne leen waa ji def nañu nii te sama jarbaat wax na léegi mooy Assane Bey chef de village wax na ko léegi ñun amuñu lu dul mbéy xamuñu lu dul mbéy ay xele yu néew fi génn eh, jàngi métier yàlla dafa leen ñu réussir sama classe gi ñu eh, am place su tubaab mais boo nee benn bala nga naan ñaar kenn du xam kañ ah léegi ñu ñëw suñu tool yi ñu daaneel yëpp mango yi xale yi xele xele la daaneel mango yi. Daniel Krief jotoon na nekk gis ñëw te Ngagne Diop gisuñu ko fi ba léegi Ndiagne war naa taxaw ak nu mënti demee problème bi lu ci mënti am moom la parce que moom moo moo représenté gouvernement bi fii ci Bambilor këyit yi mu bindoon mu ngi fi leer nañ ak fu ñu mënti taxaw dina fa taxaw loolu moom na ko leer ni bu taxawul tey dina taxaw ëllëg. président ñun dañoo bëgg nga recevoir ñun yow la ñuy waxal directement waxuñoo kenn parce que lii nii tey buñ ko seetaanee li muy jur du baax ëllëg. parce que population yi kenn arrêté wul bàyyi wuñ de kilifa yi ñun ñii ñoo calmé jeunesse si tey nañu déglu leen ñun dinañ daje waxtaan mooy waxtaan bii nga fekke dinañ waxtaan xool lu ñuy trouver solution tey jii bu ñu waxtaanee solution man naa am mais forcing bii ñuy def mën na jur jéeya kon président na oote waxtaan ak njabootam ñu xool nu ñuy résoudre le problème Serigne Souhaïbou Seck tey bu ñu nekkoon dans un pays sérieux bu am yoon man mënuñu ko fi jox 22 hectares si biirab dëkk. bàyyi jeunes yi ñu am problème mu cent cinquante mètres carrés bu dëkk te nag mbéy mbaam Ngënduf dëkk yi wër Lac Rose 2012 ba léegi nii président de la république ma sufee fee perte lii da koy yàqal lu bëri waxuma sax si village yi de mais dans le département de Rufisque et particulièrement la zone des Niayes parce que ñëpp ay mbokk lañ ñëpp ay mbokku lañ koo fi laal laal nga moroomam tey ji ñëpp a ngi compatir si douleur bi nga xamante ni waa mbéy ñu ngi koy dund ma bëgg nag na arrêté na wax ñii ñu arrêté benn nit bu mu ko jëndee aw askanu lumu kii c'est un simple promoteur un bandit foncier boo xamante ni li ko ñor mooy intérêt personnel am tey jii day maasaale bu paree defi këram jaay loolu rek moo ko ci dugal mais lii dafa nekk loo xam ne combat bu dul jeex ilaa mi diine parce que ñun ñi fi dëkk duñ mas a bàyyi moom tey dina toj kër toj bâtiment ñëw dina lal latérite xanaa dina borne mais population duñ mës a bàyyi lii moom bu ko sax xalaat kon nag ñu bëgg ñu teg lii si suuf bala muy jur jéeya. dëkk bi am na yoon ñi buñ jógee ñu ñu ngi ci sax mais nit ki bu fekkee da nga dénk loo xamante ni bii il capable pour muy pour yor ko lu mel ni bu amee ci sa zone nga nekk fa maire waroo toog sax di xaar ñu lay di ñu lay ñu lay woo waroon na fay teg tàkkam depuis lors la situation bi nan la demee. kenn ku ne sa njaboota lay tooñ mais sa njaboot nga mu ñoo ñoo lay def lu la neex ñaata carte ñi fi nekk kës néew rek ñaata carte ñoo nekk fii ñaati carte électeur ñoo nekk fii un simple soyi bu sekk ah, am xaalis bay bëgg a dee def lu ko neex ñëw tij nit ñi ci nga xamant seen kër yi màgget yaa ngi fi yoo xamante ne amuñu sax ñaar dërëm yoo xamante ne mën nañ kaa jënd médicament boo xamante ne mën nañ kaa fajoo xel yi mënuñoo dem école benn xale wax na ko ñu dem école seen seen papa yi doon fortaatu ki ñu ngi leen téye fële seen tool yi daaj nañ mais ñun ban Sénégal la ñu nekk actuellement. donc ñu ngi woo président de la république monsieur Abdou monsieur Macky Sall di wow monsieur Amadou Ba premier ministre di tàllal loxo suñu sëriñ sepp ak bépp autorité boo xamante ni am nga yërmande ci sa njaboot tàllal nañ la suñu loxo fii ci mbéy suñu cosaan la suñu suufu maam la ñoo ko moom. ñoo ko moom ñoo ko moom ba ñu fi nekkee du tey ñu ngi ba ñu fi nekkee du tey alors kon nañu bàyyeeg suñu suuf nañu bàyyeeg suñu suuf yàqal nañu ba pare suñu materiel ba pare yàqal nañ suñu matériel ba pare nañu bàyyeeg suñu suuf te constaté li nga xamante ni moom la ñu yàqal ñu xool nan lañ nan lañ nan lañ nan la ñuy def ak ñoom coow li nga xam ne mujj am na trois jours tey ba tey ñoom centre mu ñu ci ñu ngi terrain mais nee naa dëkk bi même sans sama sax bëgguma ko ci ndax bu ñu rassemblé day mel ni ñun dañoo yóbbu di jàmmaarloo te jàmmaarloo boobu ñun ñun mag ñi nga xam ne ñooy xalaat xalaatuñu moo tax ñu téye xale yu ndaw ndaw yi li ci des na mooy ñun fu ñu war a jaar dañ fay jaar la ca jiitu ki nga xam ne bii mooy ministre Omar Gueye dañoo mos a am yaakaar ci moom lu yàgg ci loo xam ne lépp loo xam ne bii mos naa am moom da ci doon taxaw courant bi bi mu jafee dëgg dëgg dëgg moo dikk dugal ñu suñu courant ci dëkk bi moom Omar déplacé nañu fii dem def délégation dem nañ mu wér nañ ak yeneen autorités yoo xam ne bii xam nañ ñu ngi ci biir état bi ñoo xam ne bii jigéen ñu président Macky Sall kun ci war a waxal pour mu gën a jotal suñu kàddu ñu ngi ci ndax ki nga xam ne mooy euh, Ablaye Wade bi muy dem dafa am loo xam lii dem ñu ko bàyyeel numérotisé foncier lañu bàyyil village bi 15 hectares bàyyi ñu décret boo xam ne bii mi ngi ni décret baa ngi nañu def euh, def extension village yi nañu comme ay béykat loolu nañu restaurer suñuy tool loolu lépp décret baa ngi Abdoulaye Wade def ko te gisaguñu benn décret bu ko dindi kon euh, président Macky Sall bu fi nekkee nekk feneen fi war nekkeen bu rafet bay dem actuellement fi mu nekk am ku mu ñu boole ñun ñëpp ñu bëgg soutenir kooku ñu xëy di def lii ah loolu day nag day na xam ne bii li ci mag ñi bokkul ci li ci xale yi ñu koy ñaan moom lii nga xam ne bii suñu bu jotee suñu message na ci taxaw ni mu war a taxaw ndax li mu bëgg ci Sénégal moom lañu ko bëggal dañ ko doon jàppale démb ak tey lii mu ñu sant fi mu ne ci Amadou Ba deuxième maire baa ngi nii ñu ngi ci waxtaan toujours ñu mën a mobiliser euh, population yi pour maanam li mu bëgg ñu defal ko. bile jàmmaarloo doonoon lu metti lool askan wi ñu bëri si ñoom jëlee ci gaañu gaañu teg ci itam sàndarma yi teg loxo lu tollook ñaar fukki ndaw nekk ci bile diwaan. dafa am suñu 21 xale yoo xam ne ñu ngi leen arrêté diggante jam ñaajo ak euh, Sébikotane ak yéen boobaag léegi ñu ngi leen ndax xale yi mbir bu amee ñoom dañuy wéy seen duñu wéy seen xel wéy seen doole xale dina toll foo xam ne boo ko ñettalu ne ba taf ko ci miir boobaa boobu lu am yow yaa ko def te bi ma kii waxtaanee commandant dama ne ko nañ ma may fi mu ne nañ ñëpp taxaw man da wax ak waa dëkk bi dugal leen si dëkk bi bu dee lu ñu war a def ñu def ko te lool bu ma dikkee gendarme mooy mooy ndax dañoo dàq xale yi bu dugg ci am na ñoo xam ne ci seen biir kër lañu génne te bokkuñu ci manifeste ba jàpp leen yóbbu am na ci ñoo xam ne ci seen biir kër lañ leen jëlee waaw dugg ci biir dëkk bi ah di simle loolu maa ngi koy ñaawlu ndax loolu waru leen terrain bi ci la ñu war a nekk ku leen fa fekk ñu jëfante yow te bu ma dikkee calme naa ñëpp yëpp dugg ci dëkk bi léegi nag dañoo topp xale yi ba xale yi dugg ci bi dëkk bi ñu ci am na xam ne ci lañ leen récupéré yi ba tey ñu ngi ci ñu ngi leen téye fi mu nekk tey mënuñu comprendre ba démb si guddi force de l'ordre ñu ngi dugg si dëkk bi di arrêté ay jeunes di yóbbu di arrêté ay nit di yóbbu ñoo xam ni seen yoon nekk sax ñu ngi leen jël di yóbbu à la gendarmerie dugg ci biir dëkk bi di dóor ay lacrymogène si biir ay chambre yoo xam ne ay malade ñoo fa ne premier jour bi ñu ñëwee liñ njëkk def moo gën a scandale comment nooy ñëw fekk dëkk boo xam ne y' a plus de 2500 4000 habitants nga couper courant bi pour yow li ngay def mën a jàll. couper courant bi kenn mënta filmer kenn mënta jàllale information bi te loolu chef du village mu ngi nii mën na ko témoin démb liñ def moo gën a grave encore si buntu dëkk bi yoon yi war a dugg si dëkk bi yëpp lañ monté ay éléments gendarmerie ku ñëw ñu ne noonu doo fi jaar parce que dañuy bañ ngeen ñëw renforcer waa dëkk bi loolu réglewul problème bi tund jandeer ñëpp dinañ daje mbéy semaine prochaine ànd ak ñun ci xeex bi. askan wi mer ba futt la ñu def ne mukk kenn du laal seen moomeel ndaxte suuf sile seen maam moo leen ko fi bàyyeel te itam seen bakkan lañ ci teg. Eh, lii ñii ñuy xeex nii di ko xeex ni eggul sax si état eggul sax rombul sax commune Bambilor bi te je prends le maire de la commune de Bambilor muy monsieur Ndiagne Diop ndax lii nii si moom la njëkke ah si moom la njëkkee ndax yow mënoo nekk si kilifa si gox bi ba pare ñuy noot sa askan. di daaneel seeni suuf non seulement yow tu n'es pas présent si lieu yi jékkati woo sa téléphone nga wax nga wala nga jël vidéo nga def nga def benn réaction buy wane ni yow tu es compati euh, euh, ak ak douleur bi ak ñi nga xamante ni ñoo fi dëkk daf ñu seetaan ak jeunes yi nga xamante ni ñu ngi leen jàpp tëj leen di leen torturer loolu tamit aussi nañu ñu si dimbali ñu bàyyi leen ñu génn ndax li ñuy xeex nii dañ ko war a xeex jàpp ñu leen si daara loo xam ne lu illégal la suuf si seeni i maam ñoo ko moom ñu siy bay di siy dund ñu siy bay di si dund dem bay daaneel foo xam dëkk nañ fa ba pare mais ñun fan lañ jëm ñu ngi nii man mii di man mii di wax ak yow amoo fu ma dëkk ñun ñii fi taxaw ñëpp kenn amul foo dëkk léegi suñ jëlee accaparé lii yëpp ñun fan lañ jëm dañuy buux bu lool suñ kër yaay suñ kër papa yi nga xam ne fees na ba pare nañu delloo wala ñu bàyyi ñoog suñu suuf Macky Sall lii nii jot na si na réagir moom mooy njiitu réew mi na réagir beneen bi may jeexalee mooy sëñ Saint bi Seck kenn nit la du ñaar du ñett du jë entreprise privée la yor du public privé kenn nit bëgg a accaparer vingt hectares si benn dëkk est seen que loolu c' est normal c' est des maçons c' est liñ bëgg nag mooy sëñ Saint bi Seck xam naa lii may wax dina ko dégg ndax Sénégal moom leeral bii nii ñëpp xam nañ ko ñu ngi koy wax ni que ñun on perdre nañ la guerre d' accord nañ. parce que ëpp nañ ñu doole ñu ngi toog mais bataay bi yàlla xam nañ duñ ko perdre daaneel taxul nga dëkk daaneel taxul nga dëkk lu si bañul bañul ñu ko si buñ daaneelee ba pare luñ fa tabax neen dem fan yi yëpp ma naan dëkk bi nekkuñu si jàmm ndax xeex parce que benn nii bu naan Sëñ Souhaïbou Seck moo fi ñëw bëgg a jël suñu àll bi yëpp li naan 22 hectares loo xam ne ay kër ngi ci biir ay tool li ci ëpp dañ koo dëkk ba pare mu ñëw ñu da koy jël bëgg ko def ay cité si lu teguwul fenn loo xamante ni nii kenn xamul maanaam fan la jëlee ay dossier ba ñëw ni lii moo ko moom waaw léegi nag loolu nekk lu garaaw a garaaw a garaaw ba tax xeex boobu waral ñun man mii ñu gaañ ma si ak ñeneen ak ñeneen ñu si gaañ ak suñuy doom yu yuñ jàpp suñuy yu ñu jàpp tëj leen fële. waaw blessure bi moom lacrymogène lañ ma dóor parce que li ko waral lépp mooy xeex jàkkaar ñoom di xeex suñ di défense suñu honneur moo waral ñu dóor ma lacrymogène fii mënoon naa fa jaare ñàkk sa kenn xamul. billaa walaay parce que keroog li ma sentir fee man ak yàlla doo xam hôpital laa mujj yendu keroog. lii ñuy wax nii na ko ñëpp jot Macky Sall monsieur le maire Ndiagne Diop moom la ñuy waxal sax moom moom la ñu war a njëkk a waxal balaa ñoo waxal kenn moom la ñuy njëkk waxal. parce que tey yaakaar naa ne bu demee ba faluwaat ci mairie bii ñun ñiila la que moom fi mu dëkk sax mënu ko gañe billaahi wallaahi talaahi suñu zone bii ñun ñoo ko gañeel ñun ñoo ko teg fee mu toog kon tey jii moom warul mën a seetaan askanam bii dëkk fii ñu leen di noot di di taxaw seen kaw di ñu jogate di dugg suñu kër yi di dóor ay lacrymogène di ko dugal suñu biir kër yi suñu yaay suñu papa yi kenn mënula nooy ñii am ñii amee asthme ñii ah, ñii di daanu di crise ñi feebar ñëpp ñu ngi seen biir kër yi ñu leen di dóor ay lacrymogène loolu dafa ñaaw ñu ngi koy ñaawlu ba fa ñaawlu yem xeex bii nag dañ koy xeex ba keroog ñuy dee ñun ba ñuy sangoo suuf suñu suuf si duñ ko jël suñu suuf si duñ ko bàyyi ñu jël de dañ koy xeex ba keroog ñuy sàngoo suuf billaahi wallaahi taala suñu bakkan yi xoolal ñun soxlawuñ ci ñaari salaamaaleykum billaahi damuñu sax si gaal dootuñu demati si gaal fii la ñuy toog xeex li ñuy xeex do ak booy yi suñu booy yëpp ñu ngi leen jàpp nii suñu papa yi suñu mag ñi ñun ñëpp ñu ngi leen jàpp tëj leen fii di leen dóor dóor meti sax billaahi wallaahi dóor yu metti gaañ leen te du yoon waruñu ko seetaan man affaire bi li ma ci gën a mooy dañ ñoo wan carrément ni ñun ay baadoola lañ dañ ñoo wan ni ñun ay baadoola lañ ndax fii ñoom ñu bëgg a jël def seen 22 hectares am na borom doole yi fi am tool teñ leen di wër jéggi leen ndax borom doole ci digg bi lañ am tool. fii la gendarme yi dugg naa ñu yéen air bu neex bii ngeen di nooyi baa doole wala koo nooyi kon loole mooy wane ñoom dañ ñu fay bëgg a yëkkati ba mu jeex tax te fee ñu nekk ne bu ñu fa jógee si suñu biir kër lañ jëm ndax fee sax ay kërëng fa dañ koo daaneel xam mbir mi lan la mbir mi gatsa gatsa la parce que ñun tey ji duñu bàyyi mu sedd de paa yi ak kilifa yi wax nañ ñu tey ñu toog parce que ñun tamit dañoo am ay kilifa mais tamit dafa am lu ñuy déglu lu ñuy déglu buñ ko buñ buñ ko xaaree tamit te dégguñu ko fa ñu de fa ñu nekkoon la ñuy delluwaat ñoom nag xam ni ñun ñii ndaru ñoo bàyyi mu sedd parce que ñëwoon nañ fi daaw ñu wan leen lu metti wan leen ni suuf sii moo suñu bakkan moo ñu ko gënal ñu reculer tey ñu indi fi presque li ñu fi indi si ay ma moog population bi ñoo tolloo. gendarme yi dugg si dëkk bi di dóor nit ñi ay lacrymogène naan leen yéen air bi neex bi yi ngeen di yi baa dool waru fee dëkk loolu moo ñu gën a metti ñun nag lenn dinañ ko wax muy monsieur le maire Ngagne Diop parce que waa ji un certain ñu naan ay benn sëriñ soin bi sekk tuddul sëriñ soin bi seek certain bandi sekk la tudd parce que lii yëfu bandi la Ousmane Dia moomu moo dàq miim fii gars yi dëkk nañ ko ay micro teg ko ay caméra muy miim te moom oto mooy indil gars yi añ nañ ko duñu bàyyi mu sedd kilifa la ñuy déglu li ñuy dox ñu ngi toog di ko déglu billaahi wallaahi du ñu bàyyi mu sedd. en tant que monsieur le maire Ndiagne Diop nga dégg sab dëkk xanaa ay bu nekkee sax koo xam ne Dakar la jógee dégg dëkk bi am na jafe-jafe sax dina mën a ñëw xool waa dëkk bi masawu leen mais yow nga nekk fii jiite dëkk bi te protocole d'accord yi nga xamante ni moom lañ def ci tool yi fii yow yaa signé yëpp def ay lotissement albatiku nga dégg problème am na ci dëkk boobu yow déplacé woo dem ci waa dëkk ba masawu leen kon affaire bi mënuñoo gëm ne Ndiagne Diop bokk ci. ñun liñ mën a wax mooy Ndiaye mi ngi ci biir terre yi Ndiaye moo ko joxe sëñ Sow bi Seck Ndiaye Diop moo ko jox ñun nag ñu nag ñun nag jeunesse su mbéy pare nañ pour joxe suñu bakken pare nañ pour joxe suñu bakken pare nañ pour joxe suñu bakken lu mu jaar pour ñu def ko dañ ko def fu ñu mën a jaar tamit pour jot suñu suuf dañ ci jar daaneel taxul mu jël daaneel na tey mais yàlla xam na ne du fi dëkk billaahi wallaahi azim lu mu ko jaral benn jaral nañu fukkam parce que ñun kenn duñu toroxal di ndax lii danoo métti ndax suñuy maam ñoo sañtoon dëkk bi ba ñu ko sañtee métti yàgg lool dégg nga ñu ñu dëkk bi léegi si ñu dem ba ba ba xam ne nga la aération bi fi nekk neex na ñu bëgg ñu ñu ko fee jëlal du mën a nekk ndax démb ba ñu réunion fee ba pare ni dañuy jaar ñoom ñëpp dañoo am na ñoo si xam dañoo rocc ko dem téléphone li ne gunay góor yaa ngi jaala jee gunay góor ñoom ñëpp ñu dem tëdd fee ñoom ñoom ñu dem tëdd fee di leen xaar ñooñu dañuy màtt di ëf baax ñu ñu sew ñu ñu lekk yàlla bu mu rees ci barke ñu ne nu bàyyi suñu dëkk bi daaneel na nag bagage yi daaneel nanu maa ngay bay daaneel tool yi waaye duñu duñu tabax ñoo ngi ba ba géej gi ñeeku suñu doom yi dinañu bàyyi ak ñoom ñu ne ak moom si dëkk bi ñoom suñu dëkk bi lañu am suñu doom yi lañu am te dinañ leen du bàyyi incha allah suñu suñu dëkk bi waaw suñuy doom a ngi si àll ba ñu tëyee man ñoo fexe ba jëli leen bu ñu demee dinañ jëli ñi duula ka fennaa ñu ngi nii ñu ngi naa ñu nga ne tey ji dañ ne woon gone bu góor tey dañ lay dañ lay ñu tëye la doo fi andi añ doo fi leen ban boole leen Atafa Njaay mu dem loolu rafet fu mu toll ni sama xol daa naxari ba xaw ma lu may wax ndax la jodi bi ñu xëyee man xëyoon naa ba pare ba mi loor laa toog dégg ñu ne oto ma dugg na fii ma toog ma woo laajte boobu sampaapa papa mi ngi si toolam ma woo ko mu ne ma gaa yaa ngi fi mais commencé gun le temps may kii mu woowaat ma ni ma commencé na noo dagg ma woo ay jeunes ñu noo commencé na le temps may ñëw fekk naa gaa yi xeex xeex première xeex ba pare mais am na loo xam dafa ñaaw am na loo xam dafa ñaaw yow kenn nag nit tax ngay ngay lor dëkkub lëmm kenn ak nit kenn ak nit tax ngay lor dëkkub lëmm am na loo xam dafa ñaaw si si image si gis-gis am na loo xam jullit moo may ko Ndiagne Diop man mosuma fekk élection fii gagné wu ko adduna mi ngi suñu kanam tey jii bu yóbboo zone B fii li gis tal bu weex bi mu ngi fi jaarati ñun bàyyiwuñu ko tey ñu ko suba waaw mais am na loo xam dafa ñaaw si image yow kenn nit tax ngay ngay lor ko lëmb te fii suñuy maam ak sañ man ren mooy sama 30 ans mënu ma fay am benn xolo 15 sur 15 mënu ma ko fay am ñu ngi jàpp suñuy doom nit gaam gaañ suñuy nit fii am na koo xamante ni fii nañ ko dóor akar major si put kenn ki waaw kenn nit nu dóor ko fii waaw am na am na loo xamante xel xel mënu ko nangu quoi waaw nan ko li ñuy def nan ko xool te yàlla tax parce que jeunes yi démb fii am na kër yoo xamante ni seen i ardoise toj nañ leen ay bomb nañ doon dóor bëm ngay dégg bëm rakar major dina ni bëm bëm ngay dégg aduwaaseeg yëpp toj nañ leen si kaw biir nit ñi dugg suñ biir kër nit ñi di leen dóor ay réformiseur te am na ay malade yu nekk si biir kër gi guddi gi démb si guddi rek ñëw nañ fi ramas ay nit yoobu ñoo xam seen yoon nekku si nonoo toog di dalu ñu fekk leen fa ramas ñoo xam ay étranger nañ ñëw dañ fay ñëw pour liggéey ay borom bitig yi dañuy fekk bitig tëj ko maa ngi woon a waaye man wax ne sama xol dafa tàng sama xol dafa jeex ndax démb bëgg dem damaa xëy tool dikk woo sama doom téléphone jotuma ko ñu ne mënoo ma woote waat jotuma ko ñoo mënoo kaa jot man ma ne biir jàng xam nga fan la war a nekk ñu ma jàpp nañ ko ba yóbbu ko sama xol jeex sama xol tàng jeex xam ma nu may def yooyu ma ne waaye sama xool jeex na ñu toogaat ay minutes yu néew ñu fekk sama rakk borom kër si kaw étage am si kaw étage am biir këram ko yóbbu ko boo ko ak mënata ko dóor ko gaañ nañ ko sax dóor ko ba muy bëgg a dee ñu yóbbu ko fi laa jooy bëkk bi ñaari fan yaa damaa sëgg sama doon tax maa jooy sama rakk borom kër bi ñu segg si kanam fu xari doole yóbbu ko moo ma naqari ñu naa jooy ñëw sama alali mag ta daa gaab ab toolam sama mag démb daa yendoo jooy daa fanaanee jooy moo ko njabootam bàyyi na leen ak yàlla ak yonentam ak sëñ Babacar fa ñu bëgg fa la ñu yuutu yàlla buñu ko yet yàlla ni ñuy suule yàlla neen suule suñu xool tàng na suñu xool tàng na metti na metti na suñu doom yëpp bub na leen yóbbu leen gendarmerie ñu nga mee ñee nga meeri ñee nga jëm ñaaje ñee nga yéen suñuy xool tàng nag te ñun yaakaar lu suñu njaboot ji kenn jëna defoon na ku jóob ñun ñoo ko ñoo ko wateeloon ñun ñi bee ñoo ko taxoon a gañe njeen jóob ñoo ko wateeloon ñoo a gañe bu toogoo ñoo ko tax a toog bu toogee ginnaaw yàlla jigéen ñi bee ko tax a toog njeen gis ñu ko dégg ñu gis ñu bokk si na njëjjëm nag suñu xol tàng na si moom tamit billaahi suñu ñaan yàlla dina ko dal suñu ñaan yàlla na dañ leen jóob lu ñu dal nag moo ñu ko yóbbee lu ñu dal moo ñu ko yóbbee moo jaay suñu su jaay ñu ñun ñëpp ak ngeñ ak kële Ousmane Dia ñu ñuy jaay kiloñ boog ay nag rayal ñu fi ay xar dañuy suulal waaye mënu si ñoon dara ñun yàlla rek lañu yaakaar ak yonente ba ñu yeewoo naqar lool ak tiis parce que li may njëkk a wax mooy Ousmane Dia ak son yi bu sekk yéen a ñu lëjal lakkal ngeen ñu bàyyi nañ leen ak yàlla heure boo leen ñëwee Ndiagne Diop monsieur le maire surtout yow monsieur le maire nga nekk say nit si dëkk bi ñu jàppale la dëj la ñun trois villages yi nga wor ñu trahir ñu ñu am problème sa tànk jaaru fa ñun ku ñu bëgg da ngay ànd ak ñun si lu ñu neex bu ñu amee lu ñu naqari nga taxaw mais Ndiagne ba nga jaaxle am lu la naqari trois villages yi ñoo la ci génn ñu def seeni i auto si yoon wi lu nekk dal ñu ndax sa jëmm tey ñu ñuy gund xatal di nangu suñuy alal du dóor dóor suñuy doom di ñu kenn gisu ñëwoo ko sa si yow ñëwul bàyyi nañ leen ak yàlla lu ñu yàlla may ñu jël waaye son yi bu sekk Ousmane Dia bàyyi na leen ak yàlla da ngeen ne air bi mënuñu kaa nooyi ba ka sunu maam di liggéey yéen seen i maam fu mu newoon lii sunuy maama na ko liggéeyal sunuy baay ba nuy fàkk booba seen i baay kenn xamul fan la nekkoon lii sunu alali maam la noo ko moom tey noo ko moom ëllëg bañu ñu si dara nag gaañ nañ suñuy doom fekk nañ suñu biir kër toroxal ñu torturé ñu ñee ngi am nañ ba sàngal suñuy doom a nga fa toog sànq lañ dégg ne xale yaa ngi sàngal kam ñee ngi Sébikotane ñee nga yéen ñi nekk déeni maali géej sebi sébi ponti bàyyi nañ leen ak yàlla yàlla leen ëpp doole koo yaakaar ku nekk yàlla la yaakaar waaye nag daaneel da yomb na waaye bi lay tabax a jafe te ñoo ngi leen di xaar nag loolu si bañul bañuñu ko si alxames fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre atum 2023 askan wi dañoo mber bu futu jóge mbéy dox ba diwaanu Bambilor daal di yàqate lu baree bari ca mairie ba def nañu ay jéego ngir mën a am ay kàddoom ci mbir mi ndaxte askan wi tudd nañu ko ci bu baax a baax wante loolee antuwut wante ca ëllëg sa la maire bi daldi janoo ak askan wi ngir waxtaan ak ñoom ca la mu xam ci coowal suuf sile. nañ xoolaat li ñuy wax ñun ñetti maire ñoo fi ne amul benn maire et je te dis kii ko man de Diop maire de la commune de Bambilor qui peut venir jurer la main sur le Coran que ne ngeen ñoom moo jël sama tool jaay ko wala mu sànni ko wala mu ñor ko keneen et ne suis quiconque dans ce pays. soyons responsables et disons la vérité aux ma ne nañu responsable tey wax dëgg la dëgg la micro ngay yàq deru doomu aadama ndax ka lay dëkk micro sax peut être loolu la bëgg ndax moo position politique ma ne ñun fii la ñu juddoo nga xam ne ñii ñoo ñu yàq Omar Diop di suñu papa kon gàtt weesuwul ay doomu aadama di bind wala di def ci réseau yi jëluñu bàyyi suufu bàyyi kenn te ku ñu jël sa suufu bàyyi mu jóge si tey nga tàllal loxoom defuñu toog teg naka la ngay terrasser sa tool ku mu doon doon ko ku ko fi def yaa sa tool wax sa ko jaay. di ko laaj di ko parce que ku ñu attaqué état. te liy dëgg lu ko wax suñu biir man dama ne lu ne dégg naa ko ci problème mu béy comment ngeen jóg ba prendre vingt deux hectares di ko jox ma sàmm wala di ko jox ma dem si on titre de l'état dama xam kuy sooy bu sañ ku ma ci accusé waxoon ba yowal xeer mu la ko baal parce que dama am njaboot am famille am ay doom ci samay ndaw la dañ leen wax lii dëgg ci nit amul kuréel bu nit mën a taxawal fii. ci commune bu Bambilor bi wax ci suuf te la nga cay wax la cay dëgg bu ma ko yëgee xam te boo toogee man la porte est largement ouverte à tout le monde pour un débat sur le foncier de la commune de Bambilor je suis élu depuis 2002 kon nañ gën a bokk ndey bokk xeex bi xeex ko pour lan muy ci ñaari côté mooy pôle yi ñu def le pôle de Delle le pôle de Diattaw le le pôle du Lac Rose ñu fexe état ci boppam ñenn fa joxoon ay boobu ñu annulé boo yi delloowaat nit ñi seen suuf bu état soxlaa ñu taxaw ci li état soxla pour mu def fa ay projet regardez les centres de logement de Saffrou kan moo ko mos a xaat amul la SNHLM est presque à cinquante hectares te maasale nit ñi toujours la SICAP la même chose. kon amul projet bu état di wax ci commune Bambilor en tout cas moom lañ xam ñun ñu taxaw di ci opposé mais xëy ancêtre dëkk yow yëgaloo ma sàmmal yëgaloo ma dem évalué woo impasse nit xamul xamaalewul ñu xëy rek raade loolu dañ koy ñaaw dafuru toog yi ko ñaaw fi may daxalee mooy lancer un appel à monsieur le président de la république suñu président di ñaan lu mu gën a gaaw mu recevoir ñu nous ne ferons jamais menace à l'État parce que nous connaissons l'État mais dañ koy ñaan ci njëkk noonu ci njëkk dañ koy ñaan ci ngir am ay xibaar yu wér te wóor jëmale ko ci mbir mile lee jëm nañoo woo ki nga xamante ne bii moo di sëriñ Soye bu sekk wante ba léegi antuwut wante am nañu ay xibaar yu ñuy firndeel que ne moom sëriñ Soye bu sekk wax na ni depuis atub 2016 suuf sile moom moo ko moom te itam yokk na ci ne ci titre foncier 1975 R bu Tëngéej nga xamante ne état bu Sénégal moo ko moom. moom Serigne bu sekk jaarale ko ci droit de bail moom moom moom suuf soosu li toll ci 22 hectares 3 ar ak 83 santiar nekk ci diwaanu Bambilor fii nga xamante ni moom mooy diwaanu yi wante li leer ba leer mooy daañu wéyal suñu gëstu bu ko defee yéen askan wi ngeen am lu leen leer ci mbir mi nga xamante ne bii indi na coow lu rëy ci diwaanu Mbéy dox ci diggante askan wi ak Serigne bu sekk